ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي طالبي بوكو جولي دي نيوغي شاري نييب رك تي جيغلو بو باخا باخ تي نيو بي اك زيار بي جيرل دي سي منتخب بشيرو ني خليفه سيغ توبا دي سي تك سي ام دي مودو مند بي خليفه سام شيخ دي زيار بو باخ خليفه دك بي دي سونو سيغ توبا موي سيغ مختار مباكي ñi nga xamante ni lii ñuy def mm. ci ndigalam lañ ko doon defee ban ko soseet ci moom ci ndigalam lañ ko xan ko sose mu mel ni lu war a jitaay bi lenn rek la muy bis boo xam ne dañ ciy dàkk ngërëmal sëriñ bi muy bis bi nga xamante ni dañ ko tuddee journée prestation te daar yi ci dëkk bi yëpp muy kuréel yi kuréel xasida yi ne ci dëkk bi yëpp ànd ko di ko def ngir ñaari mbir ba ñett bi ci jiitu mooy dàq ci ngërëmal sëriñ bi bi ci topp mooy bëggu sëriñ bi nga xam ne moo jëm ci wàllum kuréel nga xam ne ñëpp xam na ni ku baax ki wutoon na ñu ko daan defal kenn daaw leen rax te bu kenn musaana wàcc ab liggéey mu keneen ko remplacé liggéey boobu nga xam ne dañoo xam ne kenoon la ci yoon wi Sëriñ Tuubaa bëggoon ko lool te daan wut lu ñu ko daan defal te ñooñu am ci moom lu ne bëgg wum gu képp moo waral dëkk bi li fi di daara yëpp def benn fédération ngir njàngum kuréel googu nga xam ne sëriñ bi da ko gërëm te bëgg ko am ab taxawaay ci ngaay ak am ak sigi bu baax a baax bu ko defee ñi ko daan dund newoon ci mu nekk soññee ci ñoom ñi ci newul woon ñu xemmem leen loolu ko ban man caane ndax ak jaamu la lu sëriñ Tuubaa gërëm la loolu mooy sababu jataay bii li ko waral nag jataay bi mooy dañuy woo ñëpp mboolem ku dund xasida ci bis boobu nga xam fédération dana ko def nga xam ne 31 décembre lay doon te yàlla dogaloon daaw ñu defoon ko muy première édition bi yàlla defoon defaloon ñu ci tawféex ak ak ak xéwal yu yaatoo yaatu bokk talib yi ñu fi ñëwoon ñëpp te teew woon ko rafetlu ko ñu fi nekkul woon te gisoon image ñoom ñëpp ñu rafetlu liggéey bi nga xam ni fédération taxaw woon na ko daaw loolu nag day mel ni bu ci saa borom àndee 31 décembre bii leen ko nisaraat kom nan ko defee woon daaw bis bi nag lenn rek moo am ak coppiku mooy daaw ko defoon takkusaan ba une heure du matin ñu gis ni sedd beeg yenn mag ñi xam am na yéen ñu teew ci toogaay guddi bu métti bi mën naa mi teg ñoom ñu soppi ko def ko ak bëccëg ab yendu kon bu ci yàlla àndee ren xam naa di tàmbali 9 heures ci suba kuréelu tout tànk yi tàmbali liggéey bi bu ko yàlla dogalee dix heures bëgg nañ kuréel yëpp suñ borom bu ko saa borom dogalee fekk leen ci kër gi ñu toog àndandoo teewloo ndoo ko comme ni ñu ko waxoon nag kuréel yi nañ góorgóorlu ba bis bi mu bañ a ci ñoom loolu nag mooy bis bi seenu bisa kon ku jàngagul na ñëw toog teewlu mbokki taalibe mi war ku yëkëti ba nopi na tok teewlu yeneen bokku talib yi nga xamni gugun, kon day melni kaddu yi mi ngi bëgg guddu dublu gi dal du lenn lulul baytu seigne touba wi mu wax ni ya rabbi jalil muridina ma'a fi hisnika alhasini wa shablan ma'a te ñepp xam nañ seigne touba amul won jot ñakon na jot lool ko xam di daan bind xassida lama ñuy tare alquran bu jëlé daam jël xalimam bind bayit wowu kon ñor nako te loolu li sëriñ mooy mi ngi ñaan borom mu dajaleel ko ay muritam nekk benn ki jàng xasida ak ki ko du jàng ñëpp dina war a nekk benn rawatina ñu bokk ak jublu nga xam ni bokk bëgg xasida ginnaaw bi ko bëggee amaat geneen bokk muy di ko yëkkati te yëkkati ki ñu jaar la ko ci wàllu kuréel kon bis boobu ñu ngi ci woo ñëpp bàyyiwun kenn ñu ngi ci soññuwaat daara yëpp nag ci teewaay bi ak jàpp gi ñu ngi wàcc foofu suñu kàddu di siyaare mbokki taalibe yëpp di jaajëfal daara yëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu jërë ngeen jëf